alaikum euh, beaucoup téléspectateurs salam alaikum beaucoup internautes am euh, euh, di émission prestige sport ay ñu am prestige ñaar véritablement on peut pas parler de football hein, au Sénégal tuddu ñu plus particulièrement à Thiès tay nak ay euh, gande marque fi am euh, ñoo xam ne defoon nañu footballu démb ak footballu euh, tay Yamagor sec la fi dalal ci càmmoñam mafi fi dalal Sélé Dieng course Sélé muy ko xam aussi il a fait ses preuves ici à Thiès au niveau nawetaan au niveau club actuellement mu suis du côté de euh, Kaffrine dinañ seq ak ñom waxtaan bu yato yaatu jëmele ko ci euh, football euh, d'hier et d'aujourd'hui comme toujours ma ci and ak sama consultant coach Khalifa Fall Khalifa maa ngi lay nuyu. dina fay fallu di di émission bi remercier nos deux invités comme ni nga ko c'est des invités de marque. Mm-hmm. di remercier également nos caméramans.

di la nuyu di nuyu yaama góor ñoo bokkal plateau bi. Mm-hmm. ak euh, doyen Khalifa. Mm-hmm. di bëggee ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi safoo émission bi. yow it euh, ñu lay bëggee bu baax euh, ki nga tudd xam nga ko de. yaama góor sekk mi sama mag bokk seen jaxaaw gële. je crois que ne suñu mag suñu référence. Mm-hmm. man spécialement saa yu ma bëggee rek gis ko. mu fàttali ma démb. woyof. woyof trop. di ñu rappeler historique. histoire au football. donc c'est ñun aussi un sportif dans le vrai sens du mot. Euh, tout à fait euh, ci lool lay ñëwé ci mom bala ci euh, yow wax nga ko nit la c'est vrai il faut ñu wax ko dañ koy dañ koy parce que en fait il a marqué le football d'hier té indi empreinte empreinte Thiès toj jaxaw toj armée toj équipe nationale toj beaucoup de clubs Il y équipe nga nga football championnat. championnat normalement ngi démarré ci ben équipe bu ñu doon wax AS Pétété. Xalifa mhm. mën na ma kii xam équipe boobu. Mhm. man football ça intéressé woon Djibi Diouf Nialé moo nami la. hmm c'était un très bon militaire. mom mhm. mo ne aspirité hmm après semaine nationale. mo daan dem nak benn semaine mais doo signer licence. comme mën nga fi man ko obligé bama dem signer licence foofu. après quelques temps après ma dem Kaolack comme dama. c'était tellement turbulent dama naa war ay fas rek. Hmm. dégg nga colonel kii Mambal. waaw soo xam mun ne yow jockey nga waroon doon. Euh. ma dem Kaolack ma demee Kaolack. Hmm. di football sportif. Hmm. man lay jaw bi. waay moo nekkoon suñu milieu terrain. ñu ko doon wax Amarildo. waay ma Ndiaye Ndiaye Ngolo. ma nekk fa def presque quatre ans. après grève soixante-huit ma ñibbi si Thiès. ma ñibbi si Thiès après ma signé licence COT. ak Jo temps yooyu nag il y doon joué. yàgguma fa tuuti rek après dem incorporé dem armée. dem armée mais euh, yaa ngi wax euh, sa passage Kaolack mais kon Yamagor man euh, xaj na dama xawoon nekk xalitu mais defe naa kon seetaan naa la ah parce que man laay jaw bi muy ñëw ak Kaolack Sporting maa ngi Kaolack jot nga football Sporting. waaye ba football. yaa ngi Ablaye Diaw mi. maa ngi lay Diaw. Hmm. dama leen di benn anecdote dañu ñëw di jouer benn match derby. Hmm. USK Sporting xam nga ni mu mel. Hmm. xam nga dafa tàngoor lay ñu daal ni ma sekk man ko man ma tay duma daw de man ko lay do daw do football ci do daw man fi lay taxaw lu ngeen ma jox ma do ma bata waxo suñu entraîneur bata mi ngi que je salue de passage mi ngi nek refis ni ko lay yow man ko su ngeen mënul ngeen genn ma ndaysan après comme effectivement dafa tangul mais moom mënul football dafa mënul dóor ñu tuddu ko amari do après nak man ak ñom ma ndjay ngóoloo xam nga ko ma njaay ngóoloo ñoom pepe pepe njaay après ak tayru job pourtant Tahirou nekkoon na Thiès. Mm-hmm. après ñu affecté ko fofu ñu nekk fa. Mm-hmm. après ma jóge fa grève sentit ma ñibbi si Thiès. mais kon lan moo tax footballuloo Mbossé parce que en ce moment ci période boobu euh, c'était une grande équipe du Mbossé je me rappelle ay ñoom Lalla Souma ñoom Assantal jamono jooju la woon ah vers les années 70. si je me trompe boo fekk na maa ngi Asfa. boo fekk na nga dem Asfa ñooñu après dañ daje équipe nationale. Uh-huh. Lalla Assantal mm-hmm. xam nga ñoom dañ daal dañ jaar équipe nationale espoir. moi j'ai jamais fait les espoirs. dama ñëw rek. comme je me connaissais. Mm. te moom maa fa newoon. Mm. lamin Diack bi ne woon secteur de sport. Mm. daf ma jël yóbbu ma directement A. boobu j'étais ailier. man maa nekkoon doublon ñoom Mamadou Diop. Boy Dakar. Pam Ndiaye. Petit Dia. maa nekkoon seen doublon nga nekkoon seen doublon maa nekkoon seen doublon. nga nekk ailier ba mu yàgg nga doog a ñëw nekk milieu terrain lan moo indi transition boobu ailier milieu terrain parce que apparemment euh, milieu terrain bu gàtt daawuñ ci football bi actuellement Sele dina ci wax soppuñu un milieu terrain kii kii qui est petit de taille yow nga nekk ailier ñu lay indi milieu terrain. dañ ñëw dañu amoon un entraîneur allemand bu ñu doon mhm. nga ko xam parce que kii na fi Helmut Moor. Mhm. fekk dañ demoon Allemagne. Mhm. équipe nationale ak Mawad ñi ñu ñëw ñu jox ñu ko. comme assistant technique. mu ñëw comme jubóo wala Mawad ñu jox ñu ko armée. mu ñëw il m'a visé, jouer mu xool ma ne ma tu trop technique pour un ailier. ñu mhm. football di football di football benn bis ñoom Aswa Asfa Asfa -hmm. boobu Jaraaf seen grande équipe boobu. Mhm. militaire il y avait Léopold. Léopold Euh, Cheikh Cheikh. non non non. Euh, Mbaye Fall Moussa Ndiaye. non Mbaye Fall. Mhm. ak euh, Ndofène Fall. ok carré magique -hmm. ma ñëw mu def ma remplaçant xam nga surtout dañu doon may casse mm. bi ñu mitaan mun ma rejeté ma rejeté ma da nga jugé xaw ma sax luy boobu élié rek. élié rek. xam lu ñu tuddee machine à centrer foo taxaw ma centrer la. Mm-hmm. centre en mouvement et tout. Mm. la koy nu mu la neex xam nga centre passe la. oui léegi ma ñëw mun dugal militaire man ko militaire dama xam fu may taxaw man ma c'est pas mon dugal. Mm-hmm. après ma dugg taxaw ñoom la woon ni i. sa waay yaa ma ko def changé poste léegi de. daal ni ma xam nga rek ni ma fii de fii bopp la de mën nga xam ne ok. Hmm. comme xam naa am naa condition physique. Hmm. am naa technique du ma sonn daal. toog na lu di xool ñuy placé may daw di dugg nii. Hmm. après ma xool ni ñuy placé ma commencé placé woon di récupérer. ma dégg la woon ñu ne sa waaye ngi récupérer de naan kii dafa naan de. mu ngi récupérer récupérer. ba match bi tas ñu door ñu de 1 deux semaines après ñu ñëw contre Jean mu jox ma 10. ni ma fu la neex demal ci terrain loolu moom moo ñu indi au militaire parce que comme mm. j'avais une bonne vision de jeu une bonne frappe mm. et puis techniquement tactiquement j'étais très fort mm. pour transformer mon 10 mon dama naan def 10 à soi je me demee équipe nationale def 6 def 6 euh, semaine passée avec euh, Khalifa euh, Saleh ñu ngi fi dalaloon Yunus, ah moom aussi jël jaar équipe nationale mais ñun sunu une génération jaar nañu tuuti ci ci ay formation ah, école de formation mais

ngeen commencé dóor. te doo ko gis daal. Hmm. est hmm. loolu moo taxoon école de la rue dafa baaxul. enseignement par imitation. par imitation effectivement. ngeen gis dara daal di dem yéen. moom da nga koy lire rek doo ko gis da koy lii rek. jël bu fay lire rek et. lii war naa ko mun a def xaaral ma entraîné ko. entraîné ko ñun l'école de la rue. école de la rue. et puis hmm. dañ daan yi dafa bari woon daal on jouait beaucoup. on jouait beaucoup. au milieu, sport, milieu scolaire aussi, aux yeux beaucoup. Mm-hmm. Puis dans les quartiers, aux yeux beaucoup, il y avait beaucoup d'espace. Mm-hmm. moo taxoon ñu. ngeen amoon yenn ñu amoon yenn qualité technique yi daal. Mm-hmm. loolu daal. dinañ ci dellu c'est très important li may li may souligner nii parce que dinañu def tuuti benn jàngat entre ñoom ni ñu jàngee football ak léegi ni ñuy football dans les centres de formation et dans les écoles de sport. Euh, Sélé euh, maa ngi nuy euh, nuyuwaat di kontaan ci ñëw bi dégg nga Yamagor li mu wax yéen en tant entreneur yow jot nga seetaan tuuti ci ñoom mais aussi da nga transversal parce que jaar nga ci ci nawetaan nga xam ne on n'a par le temps de former jaar nga ci club naka nga jàngatee waxu Yamagor bi nii. waaw wax ji moom dafa dafa ferenkulaay parce que boo xoolee fi ñu toll les grandes nations du football. souvent mm-hmm. c'est les joueurs yi nga xam ne ñoom génn dans dans l'école de la rue. souvent centre est barré, il y gars yi gens qui dañuy créer centre. mais des fois c'est pour ñu kar euh, ñu jël xale bi tel ko euh, affaire business là, quoi léegi football business or que nous, ils le faisaient par plaisir donc ils étaient beaucoup plus libérés beaucoup plus talentueux mais beaucoup plus aussi respectueux par rapport ak li ñu leen doon wax parce que nous, ñi leen dit jiite pratiquement ay modèle lañ leen avons def nous avons leen ne woon fanaan leen nous ñu fait fa toog leen fii ñu fa donc nous avons fait ñu ëppee loolu la ñu la nouvelle génération chance beneen bi dafa am léegi nous xam dañuy wut xaliss ci football bi té ñom wutuñ ci won plaisir lañ ci doon def dafa am ño xamné légui dañuy ñëw wut seen seeni nit daal di centre daal di jël boy bi né il est 1m90. Euh, bon il fait 90 kg euh, kilos donc il peut être un joueur donc ñi dañ da nek joueur ñu perfectionner leen mais ñi dañuy ñëw ñu bëgg leen def joueur ok voilà la différence wa mais li nga wax amna solo parce que khalifa mi tamit dina ci mëna a xuus bu baax moy ñi dañ doon ñëw ak seen qualité ngeen perfectionner leen ci seen qualité yu ñuy ñëw alors que maintenant on a comme l'impression qu'on forme d'abord des joueurs dañ naan kii dal bëgg nañu ñu formaté ko par rapport à à ça mhm. alors que ñii seeni qualité lañ doon ñëwee ngeen jël qualité bi rek xool ñii lañ mën ñu renforcer ak yi parce que duma la dog sax parce que ci loolu da nga daan gis koo xam daan perfectionner par exemple sa détente chez lui mhm. Mhm. daan gis ben garab wala ñom ñuy fo ñu ne kan mo gën dàq mëna laal donc ñi ne dañuy rebbi

Mais nous, les jours-là, on n'a plus le temps. On mm. a le temps de voir la télé, le temps de voir les internets mm. pour voir le jour, ni le doré, ni la doré, le mm. jour, dans le sol, dans le sol. Ils ne prennent pas le temps de, de, bien travailler pour avoir. À euh, Tout à fait. mais coach Khalifa ñi campel nañ ma sama sama débat tey dinañu xoos lu bëri ci loolu hein. euh, la formation d'hier et la formation d'aujourd'hui parce que man euh, gis naa ci différence te gis naa ne war nañu

mais léegi comme ni ma la ko waxee godaas yomb na mayo yomb na kilo yomb na bàyyi yomb na ba ngay toog sax ñu fekk la sa biir néeg ma soo yëngatu sax ñu may la ko léegi nag ku ci sol rek daal dem terrain xam nga donc comme il a dit tout à l'heure léegi dañ lay ñëw gis la waa ji xool il est bien musclé ak yooyu constitution bi rafet na nga ne kii xaaral ma def ma def ma def ko footballeur xam nga situation yooyu yëpp moo moo mais comme li mu mujj wax ni mais fii kan moo fi jàngul tël kaay kaay ñu ko dàqatal. Eh? commencé ko ci tanks nag ba ci Casa ba ci bal mag. mais loolu booy boo leen ko doon defal tey fii rek fi ngay fanaan. ñu ci tanks. fii la ñuy fanaan. c'est ça gars yi dañu ci doon dem ay 100 120 ngay toog di. côté bay léegi bizarrement Khalifa togg ma la ci école de football yi centre de formation yooyu la ñuy yàggal xale yi. Eh? tëral conduite de balle eh, contrôle surface de contact. nga dégg ñaan la kii doo mbëkk amorti. oui. terangu jàmbur bu ngeen bu bu ñu dem tracé nañ ko. commencé mbëkk. mbëkk joué ah, mbëkk joué man keroog ma ñu ci léegi amatul léegi nag léegi formation boobu euh, formation boobu anciens yi amoon. Mhm. xam nga presque balaa ñuy ñëw ci équipe ils sont doués. Mhm. qualité yëpp am nañ ko avant ñu egsi mhm.

ku ko former dans ce domaine là war na mën exceller nga jël ko former alors que bu ñëk ba le joueur moy am ses propres qualités ñëw dans une équipe nga xamné perfectionner ko day daal di yomb alors que là on construit un joueur c'est c'est c'est toute la différence mais Yamagor ki wax na lu am solo ñun ñi jaar nañ ci ah, ay mbëkk jouer avec ballon texte ñun dañ naan hein? texte cent francs dina tël 2 ans nga def deux cent ay deux jël sa francs def ce poste hmm. parce que dañuy rang hmm. so xasse ba daaneel jeex nga yow pare ci pare nga ci da ngay comme ni mu ko da ngay concentré wu mën nga ci def deux cent te da naan cent nga jël xaalis bi est ce que tu vois comme li ma ni laa wax gis nga man nekk naa équipe nationale titulaire de je te jure ñëw suñu entraîneur allemand boobu ma ñëw entraînement mun ma xamoo dara barke yàlla ni ma mënoo dara man ko waaye monsieur ma je suis international mun mooy international la con daal ñu ni ma kaay hmm. international kaay ma jox la benn équation tactique hmm no c' est sérieux daal ñëw jël pàcc ko xam nga pàcc. waaw ko ci kanam. Kan kala jël kala ah? say no do say no Elmod Mour après lañu ñu am dosaay. ok ah, Elmod Mour dañ ni ma kay pàcc défenseur li ki défend ña ci mu gañ su ñu mm-hmm. ni ma neuf la yaay 10 mm-hmm. ya ko wara a yo mm-hmm. yow la passé ni nokoy def man ko no damay déplacer ba ko so mun ma so ma la passé nga déplacer ba pàcc yek ci ko man ko ay ci mu paas ma ki pàcc yek ci ko mun ma xamoo dara. ci la ma jàngalee extérieur du pied. extérieur. nu ma da nga koy extérieur dama ci daan def ay 35 mètres damay comme ni nga ko waxee. amoon ngeen technique mais xamu leen yoon yi. déggu li ma mu ñëw surface de contact yi. Hmm. mu may jàngal comme école de football. te international. léegi ban international nga ñu ko kaay moom la surface de contact dala naan kii daal dof. dépassé naa loolu. surface de contact mooy jàngal. Hmm. coup de pied. c' est pour auto bal bi am puissance. Hmm. intérieur du pied. précision. extérieur pour lifter la. di ma ko jàngal je te jure te boobu maa ngi équipe nationale titulaire. xam nga léegi yow soo demee naturel ma ñëw ne def li rek ma naan waaye kii dépassé naa li tout que jàng du wees jàng du wees moo taxoon vous aviez la technique mais xamu leen woon nag ni technique mënu leen ko woon na euh, agencé agencé pour ban moment ngay def lii voilà moom nag mu ñëw comme ni nga ko waxee ni da ngay ñëw ak say qualité moom mu gën a perfectionné loolu moo taxoon mm. man suñu daan football nii asfa yenn équipe bi gars yi mënuñu ma marqué mm. c'est sérieux mënuñu ma marqué parce que comme ni nga wax dama tuuti amoon naa doole mais dama touti amna condition physique bu dey techniquement tactiquement j'étais très fort. Mm. loolu mom loolu mom may chance. très bien euh, légui nak les choses ont évolué. hein mm-hmm. ah, évolué nañu entraîneurs yi gën nañu xarañ dem nañu jàng yi am sen lijaasa et puis y a le matériel. Mm-hmm. y a le matériel maintenant. <laughs> toujours damay fatali école xaw bu ñu fa daan fubal yi xale yi jàng fi mu nekk nii. dañ ko daan jang ak ci dans l'école de la rue hein mais ñun fa lañ daan def ay match une lañ daan une heure.

le jeu traditionnel dans le domaine du football intégré dans dans les séances d'entraînement je pense que ak philosophie de jeu ça peut faire avancer la technique non. tout à fait tu as parfaitement raison parce que ma c'est parce que da ngay un rapprochement bi da ngay comme nous nga format des fois dama avons grand frère par exemple garab yi si yoon bi ku si nekk da ngay essayer tëb mbëkk ko. nga kii ne maa gën a suppi donc balaa ñuy egg. Mm. donc sur le plan athlétique am na ci loo xam ne def nañ ko. Mm. mais bu ñu demee aussi dañ ils seront attentifs par ak ce que les gens leur mm. li nga doon wax nii dañuy am talent ñëw. waa ji ne leen talent bi par exemple nii nga ko utiliser nii nga ko utiliser nii nga ko utiliser. donc pourquoi waa ji observer doyen Yamagor ba si yàgg ne ko tu es trop technique pour un ailier. c'est parce que xamna né au-delà de cette technicité là mun na am une vision de jeu pour ko permettre mu gëna avancer mu euh, recadrer mais lool liko indi moy nangu yaama aussi parce que bu ko newoon man international la ailier là donc fi duma fi bouger euh, gaay wër ko c'est soit déjà conseiller wala mu dem sen kër ñu ne ko waaye la laa bañ nga mag nangam ak nangam il l'acceptera pas te tant que tu l'accepteras pas tu ne peux pas euh, faire un bon un bon truc par rapport à loolu ñu lay di xaar donc c'est normal ñun man ñi tay bo ñëwé sama kër ma génne sama ordinateur wala nangam mun na la wax ba ñuy jouer double V M génne la ba ñuy jouer 4 4 2 ba ñuy jouer 3 nangam donc lool yeb da koy jang mm. jël ko def ko panoplie xol nak nokoy perfectionner parce que football moderne bi ñuy wax di ci lele la basé wu bu lele baxul won bon tay ji duñ wax li mais c'est beaucoup plus industrialisé mm. beaucoup plus euh, perfectionné par rapport ak loolu motax tax ñu egsi ci football bi gis nga lay wax ni euh, des années yagna ay euh, 90 non pas 90 ay 97 yu y non euh, mos naa waxtaan ah nuyu au passage. Mm-hmm. en ce moment je lui disais mais WM bi gars yi kii nii. Euh, te ñu bayiko te mu jitu ci fo mais loolu ku ko indiwaatoon actuellement perfectionné ko so defoon ndànk degré équipe on a fait une discussion bu y ci mais mm-hmm. actuellement les gens. Mm-hmm. sont collés parce que c'est ça qui revient. Hein. petit à petit petit à petit. petit à petit

Euh, football yi mënul yem. kii jàngal kii mooy gën a yomb fuuf. Hmm. kee nga xam ni moom déjà def na ci bopp bi ne mën naa ba pare comme ni ko Jalle waxee. Hmm. man maa toj fépp. donc te tëjoo fenn. Hmm. donc loolu mooy problème bi. beneen bi mooy ils mettent l' argent devant. waaw yow da ngay génn rek daal xaalis. yow mën a ko sax contrôler. commencé la alors que ko tu es toujours bu baax mën a ko di laaj xaalis. di laaj te effectivement loolu ko tax a jóg. donc foo formation boo mën def ci moom loo ko jàngal jàngal. xel mi xel su xaalis bi jiituwul. je ne pense pas que dara du gaaw a kii quoi. ki ki ma góor boo ko mayoon xaalis ñeme ko yóbbu seen kër. kii moom dañu naan ko demal wuti. xam nga différence boobu. moom moo indi contre performance bi am. ci ci ci ci yenn gos yi. ak coono bi entraîneur yi daj pour leur fair de joueurs. bien sûr ñii pour defal leen joueur dafa yomb. mais lépp nag xalifa mu ngi tourné ci.

ba ci nawetaan bi soo mënul woon football doo dem ci équipe. doo xalaatoo ko keroog damay waxtaan bi may fàttaliku may eh, ñi yéen football ngeen nawetaan. am na jamono joo xam ne mais pour nga dugg ci équipe bu jaxaaw boobu il faut nga am talent pour dugg fa parce que jaxaaw googu yëpp. benn équipe la benn équipe la woon hmm. jaxaaw googu yëpp benn équipe la. te soxlawuñ lu dul. lu dul onze partants ak seeni remplaçant boobu mënul football ñeme woo faa dem naan da ngay wut licence pour pour doy la mais yemul rek jaxaaw dooguma la am yemul rek jaxaaw nga dem Somme nga dem taxu ko boo xoolee turu quartier ba la ñuy tudd ça veut yëpp benn équipe moo fa nekkoon il fallait fallait avoir du talent ñu fa nekk ñooñu ñooy ñoo doon joué COT ñoo doon joué ASPT ñooñu ñooñu c'est des mhm. nga dem tandem xool ñu fa nekk

bon le temps que ngay waxtane boy seetaan diko xol fe ak balbe mm-hmm. yow presque mom tane wala yow mi nga xamné ya ay entraîné yi bi. <laughs> non Khalifa da nga soxla. non non c' est <laughs> mais am na ci est ce que yéen da ngeen am loolu ci équipe bi. parfaitement raison. Ah des fois des fois fallu <laughs> des fois yow da ngay tok ba ci yag nak man est ce que du métier bi may def. Eh. parce que da ngay ñew juddu papa ji diko jox agnak ak reer mu mag mu nako sen Henri Camara nekkoon footballeur yow foog nga mel ni Henri Camara. waaw booy bi yoonam newul ci loolu. day ñëw taxaw ne la bon man dama bugg a football. day ñuy arrivé nga jël bal bi ne ko am. wala nga dem seetlu ko rek ñëw ne ko demal góolu ji wala nga xool ko petite catégorie la wala nga ne ko demal taxaw fee. mais il a des problèmes. Ouais. te dit man dañ ma ne man taxaw fii pour ma daw comme Henri Camara dóor mu. <laughs> si tu n'as pas les mêmes

ne ko on m'a mis en rapport avec lui il était en Europe. Mm. papa nangam nangam fekk dañ ko créer CV bon mu dal. les kooku il te paye il vient il te dit bon qui dama bëgg mu jouer parce que dans deux ans dañ ko war a yóbbu jaay ko man dama war a am ay retombées. Mm-hmm. alors tu as besoin de <laughs> résultats tu as besoin de résultats. Mm-hmm. et en même temps c'est lui qui te paye aussi. léegi des fois tu es confronté à un problème. bien sûr bien sûr. si tu n'es pas courageux il passe complètement à côté. ok. Complètement. Parce que le seul ami de, de, de, de l'entraîneur, c'est le résultat. Mhm. Quelle que soit l'amitié que tu vas tisser avec les présidents, le jour où tu ne feras plus de résultats, mhm. ils vont se séparer. C'est sûr. Il y a des confrontés avec le problème. Il y a président parce que bëgg na wala joueur bi ñu ne mec, il faut jouer alors plus pire da ngay ñëw ci équipe entraîner lundi mardi mercredi jeudi mhm. le président il vient il n'est pas là le lundi le mardi le mercredi le jeudi il vient daal ne la deux camps ma xool. mu loolu mooy lan nga pare mu ne la bon ba yan jour ngay yóbbu jox ma liste bi. Mm. wala mu ne moom list liste bii la bureau bi xalaata tu imagines. liste bii la bureau bi xalaat. non non tu imagines. après yow entraîneur nga dem loolu. mais ça dépend de l'individu est-ce que dañuy testé. oui. président nañ ma yàlla ba nañ ma jéggal. Mm. mais am na ci président yoo xam ne. Mm. comme nañ ma baal ci kàddu gi mooy comme jigéen dañu ñëw tey boo leen joxee seen loxo mm. suba ñu jàpp euh, bras bi ginnaaw suba ñu jàpp fii ginnaaw suba ñu taxaw ci bopp bi mooy dañu ñëw ne la bon man lii ak lii laa xalaat mm. nga ne ko waa si man sax loolu laa xalaat def ko mm. suba mu ñëw ne la lii ak lii laa xalaat nga ne ko bon lii mun a non defal lii tout dépend aussi de l'individu. de l'individu surtout. Tout mais comportement de mais nak Sélé li nga souligné nii euh, dinaa ci dellu si dina ci dem suñu parce que loolu lepp daf ñuy indi ci football d'hier et football d'aujourd'hui wax nga ko légui le président mo lay fay équipe am la yoré mom aussi il a besoin d'entrée d'argent eh, quelquefois aussi il faut que nga allier les deux ah, nan ngay def ba moom mu am xaalis pour mun la fay parce que joueur bi mu lay wax ne boma ko formé lul buma ko jaayul du am xaalis mu lay fayati mais yow technicien aussi ngay former joueur boo xam ne wóor na leen du am du la rendre du la jox li nga soxla di nga def euh, le contraire de tes principes suñ la gagné aussi euh, quel que soit alpha gaañu xooluñu président bi yow la ñuy xool loolu nan ngeen koy mën a gérer dans tout ça quelle est la solution accepter le président ou accepter de faire des résultats mais être dans le juste milieu mhm. parce que aussi nit dañ la dénk mhm. bu ñu la dénkee équipe mhm. ñi la dénk il faut nga jox leen nopp ça ne pas dire que ne li ñu lay wax rek yëpp ngay def yow tu as des principes amna lo jang li nga jang ak li ñu wax mom ngay allier xool le juste milieu de la fin. ça ne pas dire que lii président wax des fois président wax la lu bax tout à fait. lo xamné ne yow gisoo ko il faut l'accepter. des fois aussi mu wax la lo xamné ne bakanam rek la. mais c'est ton boss. amna noy communiquer ak mom par exemple le président il vient il te dit bon diou dama bëgg mu jouer suba. nga ne ko joué c'est pas la réponse pour man. Mhm. dès le départ indi a benn. mais man me dis, pourquoi nga yaakaar dafa war a jouer. Mhm. man j'amène le débat. Mhm. dans le débat dañuy dem ba foo xam ne dama lay tànc. je te dis pourquoi moo tax nga xalaat loolu. bon je l'ai vu aujourd'hui est-ce que xam nga lan la def démb. par exemple Dembou amna jour yo xamné Il vient ils viennent que le mercredi jeudi. Mhm. lundi gars chargé nañ mardi chargé nañ. mercredi mu ñëw def entraînement molo molo jeudi forcément il sera beaucoup plus léger. que tout le monde. day toj entraînement bi. nga ko bon lundi li la def mardi li la def. donc tu lui expliques euh, les raisons de mon choix. de ton choix. Mhm. moom bu ma ma def choix il faut que mu jox ma ay raisons moom it. Mhm. ñu confronter ñun ñaar. bu ñu déwé ba sës ko pourquoi tu m'as choisi. mais est-ce que équipe yooyu ngay am dina am euh, un directeur sportif wala un directeur technique. waaw mais des fois aussi nga dem ci équipe boo xam ne du ko am du ci la plupart du ci am. oui Sénégal parce que kooku moo waroon gën a nekk seen. temps hmm. des fois aussi nga fekk fa directeur technique boo xam ne yow fi nga nekk la bëgg a nekk. Hmm. Hmm. waaw. loolu tamit day am. wala président bee ko fa teg pour di jaar ci moom ñëw ci yow. ok buy ñëw argumenté dala naan si les présidents sont intelligents am na ñoo xam dañuy ñëw teg fa kenn. ne la qui mooy suñu directeur technique. donc ça veut dire que qui moo la coiffé. Qui moom nga war a discuter mais ñoom. le jeudi tu vas faire le choix wala le vendredi. mais day jaar ci moom. ba ñu former cette affaire ba teg ko. ñu deux contre un ci yow. mais foofu il faut avoir du courage. Mm. il faut avoir des principes. des principes d'où li la concertation et la communication dafa C'est importance dans la gestion d'une équipe pas ñi bañ di di di santé mais ñuy di argument sur argument tout à fait nan ngay wax entraîneur yi nga après dañuy dès le départ man maay entraîneur je dois c'est moi qui dois faire le choix même pour le président bi il a le droit de veto non c'est moi apparemment je dirais que je dirais que moi je ne li mais j'ai été à la bonne école mhm. xam nga boo génnee jaxaaw mhm. ku ma wax <laughs> fa yor petite catégorie mhm. mhm. ñuy wax seneps ba léegi seneps la ya on insistait la formation on n'avait pas une équipe élite boobu tout se faisait dans la formation on te formait sax en tant qu'entraîneur tout à fait timing doo tardé détail donc Albert Manga fu nekk yàlla ko gënal fi mu nga ñëw fekk fa ay xalifa fekk fa ay Euh, Gaussou avant que euh, Père Zalé. Mm. donc même si elle si aussi Lucien. Mm. donc tu étais à la bonne. au-delà des cahiers tu as eu la formation. moi j'avais la chance. Mm. Lamine Gueye di nekk foofu yor raay. dëkk Seneps. nga am joxe cours il te permettait d'être dans la dans dans la cour jël ay cours comme ça, après ngeen échanger boobu moom ngi yor raay aussi. donc tu étais à la bonne école par rapport à loolu. Mm-hmm. donc on insistait sur ces aspects là. Mm-hmm. mais yow après dañ lay jàngal la mm-hmm. au delà des considérations le dernier mot te revient. c'est à toi d'assumer le résultat. mais pour assumer un résultat. il faut être capable de faire les choix toi-même. et d'écouter les gens. d'écouter tout le monde afin avoir le dernier mot. il te disait quand même, il arrive ça, des fois des déglu chauffeur car bi moo ngi leen di yóbbu terrain. moom moo ngi xool ci rétroviseur on est xam ne yow tout à fait il peut voir le joueur qui est en train de faire des choses yo xam ne yow yëgoo ko. kooku il faut l'écouter. Mm-hmm. permettre ko sax dawal bi da koy gën a neex. ka lay terrain bi jardin il faut l'écouter parce que am na ci lu mu xam ne peut-être xam nga ko. mais gis nga euh, Yamagor Khalifa Salé li muy wax ni li du ngeen di wax yi yi les nouveaux les nouveaux joueurs. Mm-hmm. <laughs> par rapport ak Nyom Yamagor ak ñoom nga xam dañ indi le nouveau euh, entraîneur le nouvel entraîneur maintenant aussi dafa mel ni am nañu am nañu am nañu benn problème boobu mooy woy maa jàng maa xam du ma déglu keneen alors que lolo, tamit euh, c'est un conseil qu'il faut donner aux aux entraîneurs actuels. je ne veux pas citer de nom waaw mais il y a un entraîneur. Mhm. s'il échoue s'il échoue à la à la à la à la à la à la Sonacos. Sonacos ah. à la Sonacos. loolu là, à un moment donné dafa demoon ba il était trop suffisant pour moi, c'est lui benn moment gars yi bàyyi ko affaire bi les bras croisés après ci la équipe bi de dañuy L2 donc vous euh, dee euh, war nga mën a s'il avait échoué Hein? Parce que son style échoue, on pense que c'est. Il a échoué. Ouais. Il a échoué, équipe de, de, la, de, de, de la Ligue 2. Mm -hmm. Mais, moment Bobo, bon, c'est un, un regret. Mm -hmm. Parce que dès que je

comme comme li mu wax ci communication donc il nous disait que gis nga même le chauffeur l'entraîneur doit l'écouter le cuisinier l'entraîneur doit l'écouter parce que di ngeen dem réfectoire gars yi lekk ñi danga danga kenn lekk ba lekk lu ëpp am koo xam ne xam du lekk <laughs> waaw wala koo xam ne lekk xamoo lan la yow waaw parce que souvent euh, euh, seen table fële lay nekk joueurs yi nekk fee en tout cas c'est quelques fois ay les capitaines les capitaines d'équipe. joueurs, les entraîneurs les écoutent. parce que n'est pas pour rien que je pour capitaine. capitaine parce que la brassard non non non. capitaine tu es un hein. Il bien sûr réuni c'est moi moi c'est moi moi très bien c'est important euh, d'améliorer euh, le exemple exemple euh, Allemagne a pris la coupe du monde Italie je crois en Italie. Mhm. Allemagne a gagné. Tu vas parler de son staff. Wow. Staff, ouais, ils étaient partout. Fox, on voyait Bertie Fox sur le banc. Tu te, rappelles, sûr, mais ce n'était pas lui. Hein. Les autres étaient, sur les gradins. Ay, à la mi-temps, ils étaient ay Chebmer, ay Beckenbauer. Mais ils étaient tous les vestiaires. Waouh

ñu ñëw boobu ñoom dañuy am seen benn système kona mm. kapi mm. xam militaire mm. suñ ko passé ci militaire seega day décroché daf doon fixé mais day décroché dugg su duggee daf koy passe mu dugg ak bal xam nga kona su jaar ci ginnaaw demee bëri du ko topp parce que waaw xam nga du ko topp parce que danaan su ma ko toppee suñu fa passé suñu dugalee mën la ñuy wax dañ koy passe mu centre gars yi mbëkk mu def ko beneen ñaar yoon ma oo Omar Gueye ñu ko Omar maanaam mën ko xoolal kapi saa yu demee saa yu jë jëlee place su Seng rek topp ko man dinaa la xaar. Hmm. xam nga lu ma kat wax. Hmm. bu yàq suñu affaire. Hmm. pour te dire que techniquement on était très fort. est ce que tu vois tactiquement on était très fort dañ ci biir terrain dañ ko réglé ci biir terrain bi. est ce que tu vois. des fois bi dina la wax dara nga ñëw ci terrain bi. affaire yi changé. lu dañuy waxtaan rek. Khalifa mooy sama entraîneur moom mooy am góor soo liggéey lii ak lii mu ñëw données yi changé. mais aw ma temps ñëw naan ko coach lan lay defar. dañuy waxtaan rek.

toutes les situations veut dire qu'à un certain moment, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, de jouer, de montrer leur talent. Après, tu me rends compte. Je me coach, situations, situation, li, li, li. Moi, j'aime beaucoup plus ce joueur-là mm-hmm. que qui n'a pas de beaucoup de togol mu tog, jogal, mu mm-hmm. Mais créativité, mag lip, d'un coup, il taxagne ko dugal ko ci ben C'est vrai. Nous, des fois, dañuy joxon suñu bop. Or que yow on t'a donné que des ficelles. mais chaque jour bo tëddee fu kenn newul. Mm. nga xalaat ne nit jox na ma conseil bo xamné man xaw ma ko woon ci football. wala defloo na ma lo xamné kéro keroog tax ñu gagné. mais il faut être humble. pour l'accepter et l'accepter. et l'accepter mm-hmm. c'est ça la réalité. ça à dire que j'ai vais bi ci ben ci ci Sélé. Euh, il aimait un joueur. Mm-hmm. euh jàpp ma tur bi mais il était court là mais fu Sélé dem da ko yóbbu. résidence Sele je crois que Pikine ko jëloon xam nga Dakar daal. Sele moom yàgg naa yóbbaale ay joueurs. moom moom tamit ah kii joueurs yi fan yi entraîneur. non kii exceptionnellement ah, am joueurs yoo ne koy non mais kii exceptionnellement. non xalifa mooy def sama kii exceptionnellement dafa am kii exceptionnellement. dama ci convaincre ay nit. moom nekku fa. c'est-à-dire il fallait le défendre aussi. mais gos bi te te mu te bàyyi da ko dafa bëgg a bëri bëri affaire yooyu rek. Ah, Omar. waaw Omar lambar lambar ko voilà. Omar fu seera dem yóbbaale ko. yaanaam seet daf ko bëgg daf ko bëgg may xool Omar. Fallou di xool Omar. Omar était le joueur le plus tactique. Ouais. que j'ai jamais vu. Bien sûr, bien sûr. Omar, presque c'est lui qui réglait tous les problèmes du, du, du, dans, dans, le terrain. Mm -hmm. Tous les problèmes. Mais coach, est-ce que. Tu dis... attention, c'est les c'est Omar. Omar Mais est-ce que, est que tu es d'accord avec moi Parce que, madame, ce que je observé, moi les joueurs les plus tactiques dans une équipe parce entraîneur beaucoup très souvent ces joueurs là passent inaperçus ni ñi duñu gis Il n'y a que l'entraîneur justement qui peut comprendre mais entraîneur bi da parce qu'il est là pour compenser des erreurs voilà il faut que y nga un top top entraîneur bi top équipe bi xam ni qui gis rôle parce que y a des joueurs très tactiques Il y a des y a fois jouer mais Yamagor. là tout il était obligé d'être tactique non hein. non il était très tactique. mais il était obligé parce qu'il est petit de taille. bu tactiqueul Yamagor il a joué à Yamagor. Mm-hmm. carrière mais il vous avez joué à Yamagor Il a reporté match Yamagor Sénégal Zahir. Mm-hmm. Hein, jour tabaski a il faut ñu délouser parce que c'était un j'étais tellement tactique nationale de football c'est extraordinaire c'est la réalité. moi j'étais très tactique. non non même à la tu étais obligé d'être tactique. Mhm. et technique à la même en même même temps. Mhm. parce que yow de taille de nga ba dem di football ci militaire. le football ba mhm. obligé.

je crois que ne Fallou moom bientôt ba am. tout à fait damay boobu parce que euh, wax nañ ma ko moom. waaw juñ la ma ne laay jow ko ba sonn pour invité ko ñëwoon démb. tey nag fii la ñu ah. nekk ci la ko nar a waxee fii la ko nar a waxee. <laughs> sa match euh, Sénégal Zaïre te mu terminé ca série tir au yow sax dóor nga penalty mais match boobu laa. ca tabaski ba ca tabaski ba. am na ñoo xam ne dañoo dañoo lekk yàpp ba pare ci ngoor si ñu. taf talu maa ngi koy fàttaliku comme démb. non du ci gorsi de yaa ngi fàttali yaa ngi ay boori midi ay boori midi voilà midi boobu ay boori midi ah. très bien. Euh, maa ngi koy fàttaliku nii ah. Euh, muy match historique. dafa bëri problème sax. waaw match boobu moo tax ma bëgg nga dellu si. ci préparation ba ci match bi. largement dañoo ñëw fi ñoom. ñu ngi soog a jóge coupe du monde. Mm. Zaire ñu ngi ñu recruter Sénégal boobu Sénégal ñu ngi fii Enewa nekk. Mm. Mm. base. waaw pour dire que daaw ñu topp équipe nationale dafa

dënd ay meew ak yooyu c'est sérieux man grand dañu daan ñëw dama leen di saaga ñun ma yow booy ma leen damay dañ ma sori sori ku ma ci yónni dinaa la waay jo job ñu ne yéen a ngi soog am problème parce que yàlla match boobu dañ ñëw ñu dóor leen fi 3-1 ñu dem seer ñu ne non ban équipe moo door ñi 3-1 mm. ñu gis ñu ne non tu un bout d'homme comme ça là mm. yóbbu ñu hôtel boo xam ne hôtel de passe la cool yi pour déconcentrer ñu rek xam nga ñun ay bandi lañu mm. coow li ni ku faalewul leen. hôtel de passe mooy dafa bëri xumbeel. Mm-hmm. guddi gii càmbal cambal gi déglu ma la xanaa doot waay yow. xale yi di leen romb pour ñu ne leen wala gaa yaa ngi. pour pour faalewul leen sax waay. ñu ñëw di dugg ci stade. Mm. ñoom seen carré bi su jot a dugg. Mm. ñun ñëw ñu ñun du ñu dugg nañu wàcc. Mm. boobu dem si sa Malick Ndao ma ne woon directeur technique. Pape Diop ne sa ñu ne nañu wàcc. Malick Ndao du ñu wàcc mën ko noonu Malick ñun ko Malick nañu wàcc ñu danañ di rey garaawul. ñu wàcc dugg si déglu laa ñëw di ko wax

ñu raté bi ñun ñu dóor ñëpp dañ doon raté. léegi bi ñu ñëwee ni tiro bi gars yi doon dugal yëpp ni dóoruñ. ñu ne dóoruñ. dóoruñ dóor ñëpp da ngeen doon raté yéen. waaw <laughs> yéen ci entraînement bi da ngeen daan raté. da daan raté gars yi dugal. da dugal sa équipe ko wax mu ne yow ma fa <laughs> dóor. ba raté yëpp. oui léegi Christophe Ndel Sial sa ndeysaan xam nga gëréel ñu manqué kenn ku ñu wax nga bañ ku ñu wax nga bañ ñu xool bus ke ni ko yaay dóor Bosquet moom dañ ko désigné. ñoo ñoo ko yaay dóor jooy na fa def na fa ñu ko su ñoo néew ci cinquième bi daal yaa ko dóor. xanaa loolu moo tax laa jow tiir boobu moom. waaw mu ne tout le Sénégal va tirer. avec Bosquet gis nga nit ñi. non dëkk baaxul gis nga suñu la yooxoo rek nga déconcentré ñu ñëw Chris ñu def toos Chris gagné ñu gagné ma eh bàyyi ma dóor xam nga gëreel ñëw teg dóor mu dugg. ak soo tegee yoo yi lay yow. non c'est extra non fan mënu ma la wax. <laughs> non doo dégg non. non match boobu kay ñu ngi fàttaliku reportage bi nii. xalifa mais mënu ma la wax noo si doo mun nit jafe su mu la yooxoo doo dégg sax. Mm. doo dégg sax sifflet arbitre bi. Mm. <laughs> Chris door mu dugg. seen benn waay ñëw door mu dugg. Chris ni par kii mm. daal di ñëw door mu dugg. seen troisième tireur ñëw door ëmb di jàpp. waaw dóor Amady Diab. arbitre Badou Gueye moo dóor ak Chris. waaw seen ñoom seen deuxième tir ñëw waaye ji dóor Amady Diab. Hmm. arbitre dafa bougé ñu song ko di rambaale woon. Hmm, ñu song ko coolu kur dañ ko fayoon. di rambaale gaboné waaw coolu kur ñu poñe ko mu ne noonu noonu dafa bougé. Hmm. ñu ko arrêté ñu ne ëmb waa ji day changé de mu ne xam naa day changé. mënu ko. effectivement mu changé mu naaw. Christophe ni ma yaam assuré mm. ma ñëw embarqué dóor mu dugg ñu nekk ci nekk ci ba mu des bës. bës mm. bi muy dóor xam nga da war a xool ni camp yi. ñun dañoo won ginnaaw camp <laughs> yi. <laughs> parce que fal soo gisee ñun dañu won ginnaaw camp yi <laughs> xool ñu béy. ñu daal dañ dégg sifflet far. tël rek. gis ñu public bu ñu xam ni bal bi dugg. bal bi dugg rek ñu naaw. non c' ex non c' est extraordinaire. mais mais mais li may nettali yéen affaire yéen affaire guerrier ngeen mujj def. en fait kon parce euh, ba ngeen doon entraîner. ak ah, mais Sallé yéen en tant que bala may ñëw ci en tant que entraîneur. loolu bu doon tey jii nu ngeen koy nu ngeen koy nu ngeen koy xalaat yéen ngeen dem entraînement. ku si ñiy dóor ñëpp di dugal. ñu ñëw ba foofu ñu doon dóor ñëpp daal na mën dóoratuma. ku si nekk ak li nga gëm. man gëwuma après entraînement ñu dóor séance tiro bi man j'ai choisi mes tireurs en fonction de la connaissance bi ma am ci ak parce que les situations ne sont pas les mêmes il y a 10 joueurs ou 20 tout à fait Il taxaw il y a un monde mhm. tu ne peux pas préparer ça tout à fait mhm. Et aussi Je man dama gëm ne penalty yëg-yëg la rek donc man personnellement ku si sa sa philosophie mm. mais moi, je n'ai jamais cru mm. que les penalty dama koy préparer pour mm. pour pour mais je choisis pour le geste technique voilà le geste technique je, regarde mes joueurs je suis avec eux pendant un an je sais ceux qui sont à droite ce ceux qui sont posés comme li ma euh, donne wax Omar mais tu te déplaces tu prends des joueurs nga dem ak ñom deuk ak ñom tu vois le jour bo xamné ñepp ñëpp bu ñu paree ku si day ñibi day jóg fi doon ndékkee moom il se lève il prépare tout ranger ko mais loolu rek mm. ci observation la bokk da ngay xam ne kii il est prêt à se sacrifier pour tout le monde mm-hmm. il est discipliné mm. Mm. il est prêt à tout faire pour cette équipe donc yooyu yëpp c'est des choix yoo xam ne nit du ko xam voilà yow entraîneur da koy xam très important donc man dama mës a gëm ne le tireur c'est quelqu'un boo xam ne je le choisis depuis parce que ñun nag dañoo amoon chance boobu jaxaaw dañoo amoon école boo xam ne boo Santos matin ou soir penalty la donc ku fa soqee ko à 95% vingt quinze na dóor penalty donc man ci détail boobu laa comme li nga wax nii gis nga li tax mu wax léegi yaa ma en fin de compte yëfu guerrier ngeen defoon quoi xam nga euh, penalty quand même y a le geste technique mais aussi euh, caacaay ci la bokk c'est-à-dire joueur bi nga xam never la mooy gën a apte pour mun a dugal mais ki nga xam ne tic tac rek xalam dem ci. sama warate woon. yéen affaire guerrier ngeen. li ngay wax noonu Helmut Marko su naan almaam xam ma daan wax. mun ma yaam góor il faut être vagabond sur un terrain de football man koo vagabond mun ma wéy tu tout le monde. yàq suñu marché na. yow daal ñëwal def sa job après nga dem adversaire bi da hmm. la dem si sa sama sa. après sama lu ma daan wax. Hmm. mun ma soo bëggee xam yow diis nga bu bëgg xam xalifa siis mën na footballeur dem nooy def ma ne ko non ma koy kii mun ma non non da ngay jàppal mu ñëw di la marqué nga paas ko. nga paas ko nga paas ko siis bi. nga paas ko waaw. <laughs> waaw xalifa ngi daw ñu ma marqué. ma paas ko oui. mun ma su dee ku mën a football. Ah. day contrôle orienté dem. dem jouer su fa nekk su dëgg. naba la dafay nekk di kër wala mu tulli la ko yow. voilà nga xam ne kii kon la. effectivement xool li ma la wax xalifa moom mooy marqué. xam nga xam nga yooyu. mooy mooy mooy. caay caay gi mag ñi amoon te joueurs yi amul. ay fenn yu ndaw xalifa moom mooy marqué problème mu caay caay la. waaw xalifa moom mooy ma jox ko bal day tiit. Hmm. Ah, yow yaa ma war a nangu bal bi mu yow ma jox la ko. nga ma ko yombalal waaw ma la ko yombalal.

bi amna ci si ñoo xam jot dot dootu leen may ñu dem stade mm. parce que da ngay dem stade légui qu'est-ce que tu vois ay saga ay yuxu mm. ay lu ken xamul mm. yoo xam yow ce sa standing wala ce kii mayu la ko le problème d'éducation donc xalé yi soxla nañu ñi mais yombaluñu leen ko dañ leen war da ngay ñew sax pour ñom pour des fois pour ñu dugg stade problème la dañ fay fekk ko xam ñom biñuy football ñom footballul nga ñew nga da ko yaay kan kooku boo ko defee ñaari yoon sa moromu doom la sa moromu sët. mais dootul ñëw stade. mais est que du du du rôle ñi nga xam ne ñooy diriger. football fi football bi les anciens gloires dañoo war a am dañoo war a am statut spécifique. Eh, spécial mm. pour que ñoom ñu mun a am accès ci lu bari. parce que ñom dañu am chance su fekkee démb. yàlla may lañu féké tay yow mi féké wo demb mais ta yaa ngi xam nga génération yi ñom yama gor ak ñeneen ñi ay génération yoy ay khalifa mi ci génération yi la bokk. Ah. non je sais <laughs> yow est ce xam nga mën naa la wax ben affaire <laughs> bi may soga nek entraîneur. il m'arrivait le matin. ma xey dem gina horticulture. Ah. seetaan khalifa muy entraîner mbaaxaan. nga am lo ci ma toog. il m'arrivait ma jógee fii dem seetaani Lamine jéemu mu entraîné. waaye nga am loo ci jël. mais bu ma ne xalifaa ngi yor Ligue 1 man maa ngi yor Ligue 1 sama yoon newu ci. mais vous m'excusez du terme, je me le doigt dans l'œil. Bien, sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus d'expérience, moi, moi, moi, moi, vécu, mm. moi, expérience. Mais ce c'est important parce qu'un est quand même, euh, bon, c'est pas parce que je n'ai que tu tu as fait tes preuves partout. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous faites que vous avez les jeunes entraîneurs doivent fait bailler. Mais c'est ce Mais c'est le problème actuellement. Parce que les gens, ils les

suñu attaqué. muy excentré comme ni ngeen ko waxee. su ma joxee Léo. Léo day jox Chris. Hmm. su joxee Chris. day day day jox grand. Hmm. grand dugg ak bal xam nga daf koy topp. man ma jaar ci ginnaaw comme ancien ailier la su joxee mbay Fall dafay raket ci man. ñu wëlbatiku ñu génn en position d'ailier. comme yow machine à centre la woon.

comme li Sele wax ni entraîneurs yi soxla loolu ci anciens yi ñu wax li li ñu dund ñoom dinañ ko mën a jàngale. mais Fallou <coughs> damay rejoindre un peu dama lay rejoindre un peu ci fenn fii rejoindre euh, Sele ci fenn fii gis nga euh, affaire bi <coughs> bu ñu jël xaalis bi teg ko ci. kanam ba nga xam ni yow kii xam nga ni il naar kii mosul fubal. Mm-hmm. daaw seetaan fubal. Mm-hmm. xamul luy fubal. mu xëy xëy yoro ay wecc tam ñëw ne damay comme initiative wala damay def premier gar nga jël ko doo ko jël. doo ko jël parce que genre yoy ñooy ñëw parce que xam ma saa ko fi wax benn jour. Euh, directeur bi ñëw ma demandé un quota. Mm. sa quota parce que war warna la euh, jël sa sa boy yi war def initiateur. mais ma réponse ne la pas plu bi waxe waxee ma dafa dafa wax ba egg ma ko pas ak maire rek a fi dess ñepp jël ngeul def nga jox nga initiateur léegi kenn du fi wax fubal te waxuñu la euh, waxoo dëgg. ku fi wax football ñu xale bu ndaw ñu la waxoo dëgg. Mm-hmm. nga téye si parce que jàng nañ ko ci këyit yi. waaw jax na nga téye sa xam-xam na yow jàpp sa njàmbur. jàpp sa njàmbur loolu yàlla mais mooy ma jégalu mais mais xalifa ñaar yëpp nag dañ ko war a boole quand même c'est pour dire que euh, mmh. yi ñoom yaama góor ñi ah sunu genre yi nga xam ne football nañu doyul quand même nga nekk rek un ancien footballeur rek daan na léegi jox leen ma équipe yi ma entraîné ko da war a tamit jàng. loolu moo tax man la man la ñooñu la ñu war a jox diplôme yi.

mais nag football bi soxla la ba léegi de d'accord defaral ay bâtiment ak yeneen mais football bi soxla nañ la ba léegi tu as ton deuxième degré bu yàgg dinaa ñëw ton premier degré bu yàgg mais même boo recyclé wul sax jegeel yenn équipe yi avec humilité ñu boole la ci seen mm. seen encadrement non mais la joxel fa gis nga demal nga jegeel Sénégal gis nga orienté la Sénégal non dafay mel ni gis nga <laughs> wala wala Sénégal dëgg ma la xoolal comme li kii di wax gis nga gis nga su ma demoon léegi benn équipe léegi

dañ ma daan placer defal nii ak nii su ma ñëw léeg lu bi may lekk ailier li muy def ma naan su ma jàppee bal bi fii ngay jaar ma paas parce que dama koy déglu. su fekkoon j'ai dama am du ma ko dégg du ma xam dara. waaye man Fallou foofu li ma ciy yokk mooy waaw li ma ciy yokk mooy des fois enchaîné dafa am nooy comporté wu moom. Mm-hmm. enchaîné da koy bàyyi mu ñëw. nga xelal ko mu dem formé wu ji. Mm-hmm. mais boko ko ne demal formé wu ji ñëw. am na si ñoo xam dañu gis seen bopp. dañu gis seen bopp et c'est vrai la formation elle est capitale. par exemple ancien footballeur rek c'est parce que c'est pas parce que j'ai été un ancien footballeur que ah. je dois être un coach. si j'ai pas les prédispositions pour la pour l'être du ma ko mu kooku je préfère côtoyer ko diko ko naxante ba mu ñew terrain. mën na ko nag suba amna na ben premier degré non da jël rek pour formaliser wu. kooku mo lay gëna neex a dégg que anciens yi bu ngeen formé jiwul duñ leen jox di. waay tout à fait c'est fermer la porte ah, à ça. ma laa mën a entraîneur loolu ma laa def. su ma ñëwee su ma ñëwee daf ma naan soo demee nga def réchauffement def lii ak lii ak lii su ma ko nee. dama ko ni mën ma xaaral ba ma ñëw. tu es intelligent. ma bëgg a nax. voilà boobu bi ma formé non c'est sérieux moo tax ma def projet dëgg. après su ma gisee léegi ne ma yow yow doo dara doo dara waxtaan bi neex na lool nag mais waxtu wi fi mu nekk nii xoj nañu euh, Laye Diaw sama grand maa ngi koy nuyu xam naa dinañu seetaan euh, non sama sama sama grand la nag ku ku baax ci ñun xam nga sax même ñun ñii Thiès daf ñuy déglu invité nañ ko fi émission mu def ak ñun émission maa ngi koy nuyu au passage et puis moom aussi ñun ñëpp dañuy tricher ci moom bien sûr ñun ñëpp da am na lu bëri loo xam ne dañ koy tricher ci moom. ku baax la a la ba sonn demoo mais jaar nga fii soo ko gisee rek nga ne ko jaar sa jeune frère. saa yu ma demee Dakar damay jaar kii. <laughs> on cause ñu koy euh, ma bàyyi la ah, kontaan naa trop ci man maa gën a kontaan sama rek nga Xalifa sama rek la mais amul âge ci ñun. Hmm. man comme sale ni amuñu âge man.

Euh, fier fierté pour pour pour pour Thiès ça je le dis toujours euh, def say preuve nawetaan club vraiment te ba légui yaa ngi jàppale gone ci nawetaan kontaan naa trop euh, dalal la fi quoi ñu bayé la nga tàggatoo. merci grand donc maa ngi leen di remercier ci invitation bi di ñaan aussi li nga xamné ne moom moo ñu tënk ñun ñep muy feebar bi yalla nako yalla jëlé parce que c'est vrai hein Fallou. gars yi nee nañ impacté yi impacté yi mais entraîneur yi sonn nañ trop. parce que football amatul. te Sénégal bu football amul du ñu fay. mais ci Covid ba gars yi. ñu ko ah, fay non man moom j'ai la chance d'avoir un président boo xam ne je ne dirais pas mm. mais ñamagul bañ il tout le temps ses engagements. ah le président de la Ligue amateur ah bu la fayul <laughs> bu la fayul woon football aussi football la. waaw des ah, ah. opportunités donc on va jox. Mm. pour cette bi nga xam ne jëm. yàlla nañu jox daal li gën ci ñun di remercier ñëpp di remercier télé bi ak ak téléspectateurs ak liggéey yëpp tout à fait euh, kontaan trop ci yow Khalifa waaw di kontaan ci suñu ñaari invité yi parce que comme ni nga ko waxee xam nga invité de marque bu mel nii hmm. Yama Gor moom boo ko amee tey ji profité ci mu waxale lii yëpp vraiment loolu dafa lu kontaan di remercier également xam nga man ay sele hmm. Jibi Fall hmm. euh, Jooni man samay waay lañ quoi voilà samay waay lañ ñooñu ñoom dama leen tiitaroo ñooñu ñooñu samay waay lañ parce que wax football, Thiès ils ont tout fait. ils ont tout gagné. Mhm. mais il y a le di de defal ndam. ñu mhm. koy am dire remercier nos caméramans. mais en tout cas je euh, suis frappé par son humilité quand même. Euh, romb na foofu. <laughs> passé na <laughs> mais di remercier nos caméramans. Euh, di enfin di content toujours ci yow parce que émission yi gis nañ ni koy doxale vraiment c'est c'est extraordinaire. très bien man ma content ci madame Ndiaye mi nek feulé ci technique bi ci ak bobette mais aussi euh, Cheikh Fall ñu leen di jaajëfal bu baax baax ci jappalé bi ñuy jappalé sur le plan technique yéen mbokku téléspectateurs yi aussi ñu leen di bëggé di leen wax rek né content nañu ci top pour bi ngeen ñuy topp euh, chaque lundi ci seen émission sport prestige di leen jox euh, dig daje la semaine prochaine ci seen beneen émission jàmm ak jàmm ba beneen incha